wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ci kàttanu yàlla subhaanahu wa taala ak mbaaxam lañu dellu seete ci seen jotaay sunu jotaay ci fii ci Safina TV bu nekk fii ci barab bu tedd bii di Scat Urbam ci bayal bi bayal la bokk barab bi ñu tëddee Mawlana Cheikh El Hadj Umar Al Fouti radiyallahu ci zaawiye bi ci rajo bi ci daara ji ci safina haj ci yëpp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala <clears throat> yàlla nañu nangul lépp luñ fi doxal defal nu ko muy jaamu ko ñuy tàmbale sunu nuyoo ak sunu ziyaar ci sunu kilifa gu tedd gu baax gi fii di imam xaaji Thierno Ousmane Yoroban di ko ñaanal rekk liñ koy mas di ñaanal yal na ko yàlla mottilil ay yéeneem ba ñu bokk fekk lépp te tal ko àdduna ak àllaaxira mu defal nu ko mu yiw di jaamu ko ku mu nangul di nuyut sunu directrice di soxna aja ñi ma ba di nuyo nonu yitt euh, sunu technicien bi di seigne samba si waye di nuyu sunu soppe di sunu lepp fa wa ahsanul khaliqin ñu yàgg ak mom lool muy Seydina Omar Mbeng di ñaan yàlla yàlla subhanahu wa yàlla ñu boole nangul di dajale nag sunuy nuyoo ak sunuy ziyaar yépp di ko jëme ca kilifa gu tedd gu màgg yilif ñépp tey muy sunu baay bu tedd ba di baay alxaaji Cerno Mohamed Bachir Muntaqa Daha mu mawlaana cheikh alxaaji omar radiallahu taala anhum di ñëwati rek ci fàttalente ak laayante biir la sayid cheikh ahmed tidiane si al daan wax ni bokk na ci liy dundal waxtu yi di waxtaane li teew wax naa ko fi ay yoon ñaari fu ma toogit koy faral di wax ci anam ki nga xam ne ci lañuy faral di defe suñu jotaay yu mel nii ndax ñaare dañuy seet fa waxtu ya toll ñu teg fa waxtaan wa waxtu yi ñu toll nag fi mu tollook ñun mooy waajal weeru koor xooli jullit yépp ak seeni xalaat lépp ngi ci fan yi weeru koor wu barkeel wii di ñëw di ko waajal di ñaan yàlla subhaanahu wa taala àggalooñu ñu ak jàmm ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam e mu bokkit ci niñ koy waajale e, mooy li ñu booleek woor weeru koor gi آيه بسن برام سبحانه وتعالى وقت القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يين نيغوري بغم فراتال ناتي يين وور ويرو كور نيمكو فراتال وون تي جيتو وون ndax fanam yi barkeel ya bu jàllee fekk def ngeen ko ci anam goo xam ni ci wottandiku tere ya di sàmmonteeg digle ya yooya dina def ci yéen jeexital yi jaare fi mel na ma bëgg ngeen meloona te mooy ngeen ragal ma ragal yàlla nag nee naa nañu ko sëriñ Cheikh firilee mooy fexe ba yiw rekk di moytoo yiwadi nee na ku ko yëg ci sa bopp ragal nga yàlla te baatu àll laallakum tattaquuna jooju di ndax ngeen jaara fi ragal ma te mooy ndax rek ngeen jaare fi bàyyi yu bari yoo xam ni yéen a nga ca woon te sama ngërëm newu ja <coughs> laallakum tattaqun ndax rek ngeen jaare fi melawoo fi ay melokaan yu bari yoo xam ne ca ca la sama ngërëm nekk yooya nag ñu baax ña ridwanullah alim ajmain di mag ña te mooy saxaaba ya daan nan ko gën a waajale ndax ma suñu jug ci di waajal lu ni mel ndax ñu ko daan tàmbalee di waajal weeru koor ca weeru rajab bi ñu génn di ndeyu koor shaaban ñëw di baraxlu ñom ci lañ dan gëna nak wajale waajale seen bopp ci anam yépp di ruhiyan ci walu ruh nafsiyan ci walu bakkan khuliqiyan ci walu jikko <clears throat> ak sulukiyan ci walu comportement ba bu fane koor gi diké fekk paré nañu ci yoyu nga xamni dañuy and ak mom rek dem ba bu fane koor gay jeex mu bàyyi leen ak jeexitali yooyu muy la àllakum tattaquun ndax ngeen jaare fii ragal ma anas ibnu malik radiyallahu taala anhu wax ni kaana almuslimuuna ida xalla chabaanu aqbaluu ala almasaxifi fa qara'uuha wa axrajuu zakata amwalihim taqwiyatan liddacifi walmiskin ala siyaami ramadan mu ne mag ña te mooy saxaaba yi daan ànd ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ñoom ñooñu ak ña topp ci ñoom nee na weer wi suma santeru di Shaaban dañuy jubloondoo ca téere yàlla bi di alquranul karim ñu ngay nafaraat ñu ngay teewluwaat aaya yi ñu ngay teewluwaat maanaa yi ñu ngay natt seen bopp ci diggante santaane yeeg tere yi di ko waajale noonu seen bopp waaye daawuñu ca yem de ngir ngir waajale koor bi ci weeru koor daawuñu ca yem waaye ñu nga ca dajale la ñuy génn ci seen azakay alal ya di ko séddale léegi ñi nga xam ni seen loxo jotul seen gannaaw tey jullit te koor war leen ñu leen koy séddale pour ñu bañ a am lu ñu jaaxle ba ndogu jafe leen ñoom noonu lañ ko daan organiser ci weer wi tabaarakallaahu doon ko ni taamoo mu nekk ngir dabu ci yi nga xam ni moom la weer wi àndal ci lëmasoo gi mu lëmasoo fanam yi barkeel yi yërmande yàlla ñeel jaam yi ci lëmasoo gi mu lëmasoo moom weeru koor fanam yi barkeel yi njéggalu sunu borom yu jëm ci jaamam yi ngir lëmasoo gi fanam yi barkeel yi lëmasoo goreel gi ci yàlla nam ma goreel ñi ko gëm nangu ko jullil nangu ko wooral nangu gi mu maanaam namm gi mu la namm goreel ca safara nga xam ne bu fani koor gi jeexee kon deetu ci dem safara noonu ñu ko daan gën a waajale nag ci weer wii di Shaaban bokk na ca la tax aaye boobu ñu jàng léegi di aaya bi yàlla farataale ci ñun koor ci téeram bu tedd bi di alxuraan aaya boobu ci weer wii di Chaban la wàcc nga xam ni Chaban koor a ci topp kon aaya boobu su wàccee ci weer wii di shaaban mooy bàyyi leen xel koor gaa ngi ñëw ñu fas ko yéenee nag woore ko ca na yàlla subhanahu wa taala ba ca jëkk nag ci ni nga ciy waajal sa bop bok na ca li ñu wax muhaasabatu nafs nango togg ak sa bop di auditer sa bop di set fo tollu ci jëf yi santane yi di santane sunu borom yi téré yi not na la wala ya ngi gën a góorgóorlu ci santane yi yu mel nonu nit ku dul yàlla ku ne moo gën a xam boppam ci ku ne yàlla rekk la xame anam goo xam ne xame woo ko noonu sa bopp waaye ginnaaw yàlla ni ngay xamee sa bopp wax dëgg yàlla kenn du xame noonu boppam kenn du xamee noonu kenn xam googu nga xam sa bopp nag yi nga baax baaxle xam nga yi dul noonu xam nga nga toog ak sa bopp nag auditer sa bopp auditer nam ma defaru waajtaay yawar nga nangu koo def nag ci wàllu jikku ci wàllu bakken ci wàllu comportement ba bu fani gi ñëwee nga mën koo wooree ca na ko yàlla bëgge te bañ koo woore ca na mu lay juboo yow ñu bari dañuy seet rek nu mu leen juboo ñu woore ko noonu waaye nga seet yow nooy waajale sa bopp ba fas ku yéene woorelee yàlla ca na ko yàlla subhanahu wa taala bëggee nga dàkke ko foofa e bokk na ci yit ca yitte yañ daan def te mu mel ni ñun dañ ko xawa a woyofal mooy daan def yittey xam fani weer fu mu toll mu jaral nu lu nekk ci def yittey xam faniweer weer bi fu mu toll waaye dafa mel ni loolu ñun dañ cee xaw a sàggan loolu bokk na ci liy tax may faral di ñaan fu ma toll ñaan gi nga xam ni ñéppit war nañ koy ñaan mooy yàlla nañu yàlla musal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa ci ñàkk woor bëccëgu weeru koor waaye it yàlla nañu yàlla musal ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci woor bésu korite ndax ñaar yi daf ñoo yomba dal lool ñun waa Sénégal at yu bari ca gannaaw est-ce que mën nañu rekk at mu ñëw bu ñiinee ne tey la seenu gu jëkk ñii ne déedéet suba la te duñ ci toog mukk jéem a lijjanti loolu tey la seenu gu jëkk bu amee ñu ko jàpp am ñu déedéet suba la te duñu toog mukk lijjanti loolu mani ni ni waroon naa fekk ñu xam fanweer yi fu mu toll ba dëppoo ci ba bokk dëppoo ci ni ah bés sàngam day mooy seenu gu jëkk waaye bu ku ne jàppee ni dangay xaar wala bokk ñi ëpp bu ñu jàppee ni dangay xaar rekk ñu séentu ko gis ko wax la te yow doo def yittey séentu doo ci ñépp kuy jullit war nga ànd ak yittey séentu ak xeeñtu fan la weer wi fan yi weer wi toll ba bu ñu àggee ci ne teel seeni gu jëkk su ko defee ñépp bokk dëppoo ci waaye ñiini ni tey la ñii suba la moo ñuy faral di indil bëccëgu weeru koor nga bañ koo woor muy musiba moo ñuy faral di indil it bésu karute nga woor ko muy musiba kon nag waajtaay ya war nañ ko ciy boole te mooy di toog di gise di waxtaan di wóolonte di wéralante mais ay jullit noonu la ñuy def waaye ñun dey fii dey ah yàlla mën a dogal mën nañ cee génne ci wowu melokaan ñuy def nag yitte ju ne toll fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin ne ci xam fan la fan yi weer wi toll gis nga man loolu naw naa ci lool El Hadj Rawane Mbaye wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla yàlla yàlla dolli ci moom wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dund le man xam naa ci moom yëg naa ci moom li muy daj ci yitte jooju ma wax ci xam fani weer wi fu mu toll ak li mu koy jaral man xam naa loolu ci moom seede loolu ci moom te loola feeñee na ci yitte jure ji mu def ba waxtu julli yi fii ba juróomi téeméeri at ca kanam te mi ngi ko natte ci jant beeg doxinam delloo lépp ci alxuraan ak sunna bés bu jot mu wax la tey fajar ji bi ngay jëkk julli laata waxtu suba ban waxtu la waxtu suba bopp waxtu wi kañ la tisbaar bopp waxtoom fan la tàkkusaan noonu tibis noonu gee noonu yitte bi mu def ba liggéey lu ni mel ci waxtu julli yi te téere boobu mu ci defar ñaari nitu yàlla di ñaari borom xam-xam rafetlu nañ ko ba def ca ay seede boo gisee téere boobu di gis seeni seede ñoom muy bàyyi cheikh seydi mouhamadul mansour si mu maam sëñ babacar si radiallahu taala anhuma ak bàyyi cerno muntaga bii radiallahu taala anhuma ku ci nekk sedd nga ni lii de liggéey bu wér la mais ku def lu mel noonu ak yitte ju toll noonu yulli effort yu tol noonu le ci def ko ci waxtu julli yi weer warulaa jaaxal de bu yitte ya amoon wóoloon te am ñu ñemeñ toog di waxtaan moom day ku jëloon yooyu wax dëgg yàlla chargé ko ko dañuy def yitte joo xam ni wuute dootul amati incha allahu taala ndax màndu na dëggu na yaru na jàpp na ñàmburam te it lu mu mas a def ci yu mel noonu ñépp mënuñoo dëppoo ci mbir mi nii lay ame ña ca ànd ak moom dina ànd ak ñoom ci noonu ci jàmm ña ca wuuteeg moom lu ñu mën a waxit ci naka sudul noonu it du tax nga dégg mu tontu jàpp na njàmburam mi ngi ci leneen waaye ñépp ko seedeel ak màndu ñépp ko seedeel fa tabaarakallaahu yaruteem ñéppit ñoo ko seedeel fa tabaarakallaahu ak dëggoom ñépp it seedeel nañ ko wax dëgg yàlla ragal borom bi subhanahu wa kon li may faral di wax ni sëñ Cheikh daan na wax ni radiyallahu taala anhu bokk na ci liy bégloo sunu borom subhanahu wa taala mu gis ni joxe na àddiyaam maye na àddiyaam joxe na ko ñu nangul ko ko ñu mel ni ñoom seen xaaji rawan nag ci ñooñu la ñu bokk kon problème mu ay weer ak yooyu senegal waroon na ko weesu su ko defee rek ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala mu àggalooñu ak jàmm ci antuloo sunuy xol sawarloo sunuy cër ba ñu tàbbee ko ci fan yi weeru barkeel bi te mooy weeru koor wooree ko nag ci ni ko yàlla subhaanahu wa taala bëggee ci ñun ñu wooree ko noonu te musul nu ba fawwit ci wooree ko na mu nuy juboo rekk googu koor baaxul xam nga damay wax ni euh, fii fan yi tollook ñun di mujj fan yi baraxlu di chambaan xam nga ñu ngi ci mujj fan yi xam nga iblis yonent bi wax nañu ne yàlla da koy jéng bésu koor sànni ko fu kenn xamul mu denc ko fa ba koor gi paase bu weer wi teroo noonu lañu koy def moom moo tax bala ñu ko ko def fi mu ne mi ngi ci assemblée générale moom iblis mi ngi woo ñi mu yilif ñi mu yilif bakkan ca la bokk ba kenn ca la bokk fi mu ne ndax ba ndax bakken mooy mooy mooy suqam fi mu ne mi ngi mi ngi def assemblée général ak bakken yi naa leen ah, dañ may jéng de xam ngeen ni weeru buy teru man doom fi dañ may jéng waaye nag yéen laa fi bàyyi de bu dara baax yàlla bëggul lu xajam mais na ngeen fexe ba lépp xajam na ngeen fexe ba lépp xajam na ngeen fexe ba xol yi gaaw a jóg da fexe ba xuloo yi di am werante yi wuute yi da fexe ba gaaw a mer di am dañ may jéng de yéen bakken nag laa fi bàyyi de bu dara baax de bu dara baax ci fan yii ñu tollool di fan yi nga xam ni mooy mujjantalu fan yi baraxlu yi Iblis a ngi ci assemblée générale yu rëy ak bakken yi di leen waajal loolu mu leen di noonu mu leen di waajale bokk na bokk na ci li tax bu koor ñëwee weeru koor bu ñëwee moom jëng nañ ko mais topp bànneexu bakken dina nuy yibi ci loo dul yëg ci werante yenn yeeg ci mbóosóor yeeg ci caaxaan yi du àgg ak ñun foofu de du fa yem ak ñun de dana dem sax ba dañu topp ci waxtu ndogu xam nga sorewul ak waxtu timis dañoo sësaloo normalement heure bi ngay dog ak heure timis bokkul da nga war a dog tuuti timis jot waaye foofa fekk na mu waajal bakken ba fa ngay nekk topp ndékki ba mburoog meew beur fromage saucisson ba waxtu tibis ba passé hmm? nga soog di di julli tibis fofu bakka na fa jaar hmm? da ngay da ngay préparer yit nonu mi wajala bakkan mi lay soxlaal loolu yewit nga préparer sa bop nonu ba waxtu ndog buy jot fek paré nga sa bu yag tek بوي جوت ريك بسم الله اللهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخر شيخ ستاندرما قال لك نان سا كافي ديغنت بوك بو غات بو تيبس دوغ nga juri timis saucisson yi xaar la ak fromage ak gruyère ak yoy la hmm hmm setal lolou te lolou bakkena koy laaj bakkena koy soxla moo tax yonent bi daan ñu ko wattandikuloo naan haulaai hum alladina laa yaxsuluuna min siyaamihim illa ala al atashi wal mooy ñooñu nga xam ni ñu nga ca werante ya yu amul njariñ ya ñu nga ca topp saucisson yaak fromage gruyère ya ba waxtu timis jàll ñu nga ca surtout bi gën a tee bon te te seetluwuñ ko de waaye xew na ci jamono nga xam ni heure ndogu buy jot balaa jot ak ni yàlla fonk heure boobu ak ni ër boobu mel ci yonent bi ci digganteem ak xeetam ñu lay tegal ay théâtre ci télévision bi laa ilaha illa nga nekk ca nag ay caaxaan nga nekk ca ay théâtre ay caaxaan nga nekk ca di ko xaaree ndogu ci heure boo xam ni yàlla bég na ci ki ko woral ba foofu di xaar yonent bi ne heure la boo xam ne loo ci ñaan yàlla mu may la ko au lieu nga teewloo noonu mbaaxu yàlla gi di ko xaare noonu nga nekk ca théâtre di kenkengeeg yooyu la wala yaasu billah yal nañ ci yàlla musal yonent bi ni ñu wattandiku kooru ñooñu nga xam ni seen yendoo xiif ak seen yendoo mar yàlla soxla wu ca dara yàlla na ca musal ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam su ko defee yooyu yëpp ñu ngi koy waajale sunu bopp ci weer wii di Shaaban te may baraxlu yonent bi wax ci ni daaka shahrun xadis bi la boo xam ne an-Nasaa'i moo ko solo ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين موني شعبان دي وير وي دي يونت بي واخ دي ويرو بارخلو صلى الله عليه وسلم نينا ويرلو و نيت ني بري دي ساغاني موم وير وي دي شعبان ndax dafa nekk ci diggante rajab di ndeyu koor ak ramadaan di koor ci boppam te nekk na di weer woo xam ni moom Shaabaan di weer wi yonent bi ne ne est-ce que xam nañu ni jëfi jaam yépp ci weer wii lañ leen di dajale yëkk ci leen yóbbu leen ca boroom ba subhanahu wa taala moo tax ba ko ko Usama laajee di Usaamatu bnu Zeydin ni ko yaa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ñun day naraaka tasuumu fi chaabana maa laa tasuumuhu fi shuhur fi shuhuril uxra ñun li ñu seetlu mooy yow dal wër wi di sha'ban dafa bari bés yu ciy woor te li nga ciy ko wor ci ludul wëru weeru koor kon nga dégg ci ni kon mën naa am da daan woor bisi Chaabaan yi yépp waaye daawul maanaa daawul daawul woor weer wi enchaîné ko weeru koor moo tax ku koy wooral bésam yépp it bàyyi ci ñaari fan wala ñetti fan yoo xam ne doo ko woor ca mujj ga pour bañ koo enchaîné ak weeru koor moom noonu la ko daan defee alayhi salaatu wassalaam mu ni tontu ko ni ko ah boo gisee may def loolu inna chaabana chahrun azimun chaaban weer wii nga xam ne ñu bëri dañ koy sàggana ci nit ñi te ma la xamal ne weer wu màgg la fa yàlla ndax lan turfau amalul ibadi ila allahi azza wa jalla te fa uhibbu an yurfaa amali fihi wa ana saimun dañ ciy yëkkati jëfi jaam yi di leen jëme ca yàlla weer wii la ñuy dajale jëf yépp di leen jëme ca yàlla te yàlla koor daf ko neex dafa bëgg koor boo gisee ma ci woor fan yu bari dama bëgg bu ñuy dajale sama jëf di ko yóbbu ci yàlla koor gi àndaale ci ma bëggalee ko yàlla jaamoo ko ko loolu moo tax ngeen may gis may woor fan yu bari ci weer wii di Chaban bu ko defee rekk ginnaaw Chaban Ramadan ay ñëw yàlla nañ ci yàlla agul jàmm te antuloo sunuy xol sabarloo sunuy cër may ñu ci mbaaxam ci dara yonent bi ci lépp luy xajamal koor bi jaahi sayyidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam weeru koor yonent bi fekke jibril daan na ci wàcc ak moom di ci nafaat ak moom ba ci bi mu mujj woor nga xam ni bokk na ci eh, si ñu joxe woon ne eh, dundam gu barkeel ga wan na gannaaw àdduna ruuxam nga jublu na yàlla weeru koor wu ne benn yoon la ci jibril daan wàcc di nafar ak moom alquran waaye koor googu mujj woor ñaari yoon la ci jibril wàcc di nafar ak moom alquran kon weeru koor weeru gën a wóolërante ak alquran la jàng téere yàlla bi ñàngin moo xam ne nag dañ ciy fexee xam maanaa yi nga xam ni ñoo ëmb ci waxi sunu boroom yi di natt sunu bopp ci santaane yi di nattit sunu bopp ci tereem yi di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu may nag ñu woore ko ni mu ko bëggee tey moytu mu musal ñu ba faw di ko woore ñun ci ni mu ñu juboo ñuy xamit ni ñuy waajale sunu boppi noonu ci weeru koor fukki fan yu jëkkam yi yërmaande sunu borom la ci jàmmam yi fukki fan yi ci digg bi njéggalu sunu borom la ku woor ba ci am ñaar fukki fan benn bàkkaar deseetoo ko fukki fan yi ci mujj ga ñaar fukki fan ba ba ñuy wari nag ci lay goreele jaamam yi ca safara yàlla na ko yàlla nangu leen noonu bi jaahi sidina muhammadin alayhi salaatu wasalaam may ñu fekk ko ay at yu bari te xoolanu yonent bi may ñu ñu mujj ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu